Rochaya Meng, euh, appelé sous le nom de Kia, qui vous, euh, qui vous tiendra accompagné, bien sûr, euh, dans Objectif Santé. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ça, 52 minutes, 88, 628, 17, 27, plus 2, pour que vous puissiez participer à cette émission. Euh, une façon de vous faire plaisir, de vous donner goût à rester sur les antennes de la LCS, la chaîne sénégalaise. kon bok mbokk yi ginnaaw bu ñu leen jaajëfalee bu baax ñu ziar ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd ci hôpitaux yi feebar ñu ngi leen di ñaanal euh, suñu borom fëgg sen bop, ba ñu ak seni sago Waye, diko ko ñaanal ñi nga xamante ñu ngi euh, ca ba euh, caabi féete leen par erreur ñu ngi une grande liberté Nous avons fa te fa souhaiter ñi ils viennent de descendre du travail de rentrer bien chez eux et de trouver toute la famille en très bonne santé la patience est un chemin d'or ça c'est la LCS la chaîne sénégalaise émettant depuis la VDN donc mention spéciale à toute l'équipe production euh, qui m'entoure bien sûr hein. donc commençant par la maquilleuse Adama mention spéciale mention spéciale à l'œil magique euh, Eumeu Fall donc au yi xarit yeeg am di jàmm yi comme ni ngeen ko xamé euh, démb indi won nañ leen ay meilleurs vœux yi nga xamante personnel LCS mo leen ko défal indi leen li nga xamante ne moom ci euh, les morts les gens qui qui ont marqué euh, bien sûr l'histoire du monde entier donc ñu ils ont été ils ont disparu bien sûr l'année 2013 donc démb ñu solo nañ ko tay dinañ leen indi ñaari gan ñaari gan ko xamante ñom ñoom ñaar ñëpp dañuy fas am ay émission yu am solo fi ci LCS kenn ki mom moy Abdoulaye borom mise à jour nga xamantene da fay wara waxtane lepp lu jëm ci high tech lepp li nga xamantene rek mo ngi dem ci walu nouvelle technologie walu NTC dina ci waxtane ak yeen ndax émission am dina ñëw euh, à partir de la semaine prochaine tous les mercredis euh, mu fas ci defal ay rubrique yu am solo muy durer 15 minutes waye dina ci dalal tamit euh, ki nga xamantene moy fi borom fi ak mon fi ak fële momit mo ngi waxtane lu jëm ci walu bitim rew walu immigré sénégalais de l'extérieur de la diaspora ñi nga xamantene duñu tayi ben yoon duñu bayyi xel internet ci www.sunutv.com ah, donc nous nous leen di dalalee détails indil leen un grand musicien qui est venu génn na Sénégal mu ngi bitim Au di fa liggéey yu am solo tout de suite et maintenant 88 628 17 27 plus 2 avec Moussa Djiné Moussa ñu dem ak à la régie mu indi ay jingle ñu dellu soit sur le plateau de 52 minutes. bonjour Diène dina euh, Nicolas Martar si 52 minutes si LCS. Bonjour, c'est moi Khalilou Fadiga. Je suis dans 52 minutes avec Nicolas sur la LCS. Salut à tous les geeks, je sais que vous êtes accro à la nouvelle tech et si vous kiffez les tics, il y a une émission à ne surtout pas manquer, c'est Mise à jour. L'émission qui va mettre à jour votre vie numérique et vos connaissances technologiques ici même sur la LCS. Ça se passe tous les mercredis à partir de 17h50. Au menu, vous aurez le GTEC, le journal de la nouvelle technologie. Vous aurez votre tuto, la rubrique qui va vous donner des astuces et des cours en informatique. Et enfin, vous aurez WebBose et Report. Ça se passe nulle part ailleurs qu'ici même sur la chaîne sénégalaise. Donc, euh, retour sur le plateau, bien sûr, 52 minutes qui traitent l'actualité de la société sénégalaise. Mention spéciale à tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct sur la LCS, la chaîne sénégalaise. Bonsoir à Abdoulaye. Bonsoir à toi, Nicolas. Comment va bah, ça va, bien. Et la semaine, ça débute bien Oui, oui, oui. Bon, d'abord, permettez-moi de vous remercier et de souhaiter à tous les Sénégalais bonne et heureuse année. Mhm. Bonne et heureuse année à vous aussi. Hein. Merci à vous. Mes santé, bonheur, prospérité, mais surtout succès dans les entreprises. Merci Amine, je vous dis Amine et je vous souhaite pareillement aussi. Hein. Pareillement. Hein. Voilà, très bien. Donc, comme vous le savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers téléspectateurs, Abdoulaye Li, euh, bon, mise à jour. Mise à jour. Pourquoi mise à jour En fait, juste rien qu'à regarder non, on comprend. Parce que nous, nous sommes dans une société, bien nous sommes en retard. Tu sais, on a besoin de mettre à jour beaucoup de choses. Mettre à jour en Wolof, moi, madame, hmm. En français, ça veut dire, comme je l'ai dit tantôt, rien qu'à regarder dans le format, au lieu d'écrire M-I-S-E, on a mis M-I-Z. Hmm pour montrer qu'on n'a pas de temps à perdre. Nous, on abrège tout. Nous, on est la génération nouvelle technologie. Même quand on écrit des SMS, on a l'habitude d'abréger ça. Voilà. Est-ce que c'est une bonne, c'est une bonne, c'est une bonne méthode SMS, nous devons abrégé. Hein? Donc, vous gens, euh, on se sent plus dafa mel comme si l'éducation on a perdu euh, une éducation de base mhm. ah, donc aujourd'hui à partir de la semaine prochaine inchallah di nga indi benn émission boo xamante ne mu ngi mise à jour mhm. mise à jour lan nga ci fas yéene waxtaan indil ko sénégalais bon en fait li mise à jour li ma ci fas yéene mettre à jour la façon de penser des sénégalais la façon d'adapter les sujets la façon de voir mais ci côté technologie nouvelle technologie parce que tout le monde sait à partir de du 21e siècle rien ne fonctionne sans la nouvelle technologie hmm. donc de ce fait hmm. on est obligé de mettre à jour la connaissance hmm. des jeunes d'aujourd'hui qui sont à l'école les étudiants qui ne maîtrisent pas la, la, nouvelle technologie peut-être grâce à cette émission ils seront capables d'être à jour d'être vraiment euh, à l'aise devant les gadgets technologiques tout à fait paraît-il qu'en même temps vous allez nous euh, proposer euh, des cours en ligne des cours est-ce que le monde expliquer tout direct euh, pour téléspectateurs yi gën a comprendre mise à jour. voilà en fait lan ak lan a rubrique en fait il y a trois rubriques bon première rubrique ça s'appelle JTEC ça parle de la technologie De nous mettre au courant sur sortie technologie les plus génn ci monde bi lu La mhm. rubrique boobu dina permettre Sénégalais ñu xam. Mhm. voilà deuxième rubrique ça s'appelle tuto. Mhm. tuto ça veut dire tutoriel tutoriel en anglais ça veut dire des cours des cours c'est filmé à partir d'une machine avec des commentaires qui passent là-dessus tu vois donc une personne qui a ces vidéos sans l'assistance d'un prof pourrait facilement comprendre ce qui se dira sur ces vidéos là mm-hmm. donc j'ai adopté cette méthode parce que j'ai n'ai pas vu ça au Sénégal. C'est la première émission qui traite ça. J'ai dit pourquoi ne pas proposer ça aux gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, aux gens qui n'ont pas eu la chance de payer des cours. Grâce à la LCS, là, ils pourront suivre cette émission. Donc nous serons les premiers à avoir cette émission mhm. euh, au Sénégal. Voilà, donc, et à chaque veille d'une émission, je vais dire ce que je vais leur apprendre la prochaine fois. De ce fait, ils auront tous les matos nécessaires pour aller avec moi en même temps et en regard dans la télé. La troisième rubrique s'appelle euh, Web Buzz et Report. Là, je reporte, ça consiste à aller vers les écoles de formation, avoir les petits génies, on les invite sur le plateau, mais on va changer le format. Au lieu de les interviewer, on va faire ça sous, forme de chat, dialogue, comme sur Facebook. Ça, c'est les montages qui gèrent ça. Mhm. Ils vont nous parler de leur projet. Mhm. Bah, là, les, directeurs des écoles de formation, mhm. les bailleurs, peut-être ils connaîtront les, jeunes ils vont les contacter, ils vont produire leur, leur projet. Web buzz, ça veut dire ce qui se passe dans le net mondialement, alors là aussi, cela va dans le sens de mettre à jour l'information des gens. L'information des gens. C'est une émission qui est extrêmement importante. Tout à fait. Voilà. Mhm. J'en profite pour dire à tous les Sénégalais de, de se scotcher devant leur télé, mhm. tous les mercredis à partir de 17h50. C'est à partir de ce mercredi-ci ou mercredi, euh, mercredi prochain Il y avait des petits protocole à mm. au niveau de la prod, ainsi de suite. Mm, mm, Alors, Même vous, on, remarque si vous parlez, vous, vous abrégez quoi, des prods. Hein, euh, de production. Parce que je fais partie de la nouvelle génération. Et Mais moi aussi, je fais partie de la nouvelle génération. On n'a pas de temps à perdre. Même quand on écrit, hein. on est obligé d'abréger. The lost time is never found again. C'est l'anglais qui l'a dit. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Absolument. L'Africain sur des Mais est-ce que c'est un bon exemple pour pour la génération future hein. C'est grâce à l'informatique hmm. qu'on a gagné beaucoup de temps. L'informatique a abrégé beaucoup de choses. Là où mais abrégé dans le bon faire sens. quelque Voilà, dans le bon sens. Mm. mais, mais, à la place de dire production, on, dit prod. Imagine-toi, là mm. j'économise mes mots alors. <laughs> Hein? j'économise mes mots au lieu de. Là j'économise mon souffle, j'économise mes mots, j'économise ma façon de penser. Mm. En fait, ça, ça fait partie Donc vous dites que c'est un bon exemple. Ce qui veut dire que c'est un bon exemple. Bon, bah, je ne dis pas c'est un bon exemple parce qu'il y aura des élèves, forcément, quand on leur donnera un devoir à faire, ils vont abréger ça et le prof va barrer c'est Et là où le je dis au prof, si un élève abrège dans vos devoirs, n'hésitez pas à lui foutre un zéro. Et il faut les encourager à lire. On dit que le numérique euh, est en train de détruire mais la lecture. Non, c'est pas ah. ça. Mm. Alors que il y a des sites d'information. On écrit correctement les trucs sur le net. Là, on a, on a, l'opportunité de lire. Tout à fait. Tu vois, mm-hmm. c'est parce que les touches du téléphone ne nous permettent pas d'écrire de longs textes. Et puis, si on écrit de, longs textes, ça veut dire qu'on va payer plus. C'est pourquoi l'abréviation. À la place de 10 francs, on paye 20 francs. Chaque chose a sa raison d'être. Tout à fait, absolument. Il faut toujours chercher mm-hmm. la raison voilà. d'être de la chose. Mise à jour semaine prochaine sur la LCS La semaine suivante. La semaine suivante. À partir de quelle heure 17h50. 17h50 Oui. <laughs> da ngay que ci zéro stress avec... ak. Euh, lu 52 minutes. Ah, compression bout dana la mettre c'est encourageant maa ngi lay wax nag ci émission de nga ci high tech parce que. léegi ñu tàmbalee defal ma ben, defal ma ben high tech defal ma ben démonstration boo xamante nga expliquer les euh, fidèles téléspectateurs de 52 minutes nga xamante euh, du lundi au vendredi on nous suit en direct mais plus particulièrement les Sénégalais de l'extérieur de la diaspora qui nous suivent sur www.sonotv.com. donc est-ce que on peut avoir une petite démonstration que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs, par mhm, exemple, mmh. téléphone. Donnez un petit exemple. Juste un petit là, ça sera un peu difficile parce que je n'avais pas prévu, de le faire. Mhm. Mais je vous promets que dès que j'aurai le temps, je passerai à chaque fois, même ne serait-ce qu'une minute, deux minutes, dans votre plateau pour vous faire euh, une petite chronique technologique. Voilà. Vos derniers mots En fait, je remercie. Voilà, je te remercie Vraiment, tu es la première personne qui m'a motivé, qui m'a encouragé. Rien qu'en te regardant, j'ai énormément envie de rester sur la télé. J'ai énormément envie de persévérer dans ce que j'ai fait parce que je vois tu es une personne qui ne te décourage, qui ne se décourage jamais. et cela va dans le bon sens. Mm, je te dis, euh, Wolof Nena, tu as un douleur. Mmh xam l'effort ne se perd jamais. ñun mm. yàlla ko bokk ñu fekkee ko ce qui fait que li ngay def nii ñëpp gis nañ ne dafa nice. jërëjëf never give up de fight. bon Bob l'avait dit. <laughs> donc c'est le message que je te retransmets. mon gars et je te dis que. Vraiment, je te souhaite bon vent. Merci. Et je remercie l'équipe de la LCS qui m'a donné cette opportunité, cette occasion de réaliser euh, voilà, mm-hmm. mon rêve. Mm-hmm. Absolument. Parce que j'ai toujours rêvé de donner de, donner une partie de, de mon expérience à la population sénégalaise. Mhm. Voilà, et c'est grâce à la LCS mhm. que voilà, ça s'est finalement réalisé. L'opportunité s'est présentée. Voilà. Je vous veux pas trop dire sur ton plateau. Merci beaucoup. Non, il a On est ensemble. Plaisir. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup, michel Okay, voilà, très bien, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez en direct, vous vous avez reçu le message avec Abdoulaye les l'émission euh, high-tech avec des cours bien sûr euh, de la nouvelle technologie, euh, de NTC bien sûr, que vous aurez l'occasion de voir tous les mercredis à partir de la semaine suivante, bien sûr. Euh, mercredi de 17h50, bien sûr, à partir de 17h50, tous les mercredis. Euh, donc, ce sera sur la LCS, la chaîne sénégalaise, votre télé passionnément. 88 628 17 27 plus 2 pour que vous puissiez euh, participer à cette émission. N'hésitez surtout pas. Nous traitons l'environnement, la culture, le sport, l'économie, même la politique avec ses grandes lignes, la santé et le social. donc, tout à l'heure, après Abdoulaye j'aurai l'immense plaisir de vous présenter le grand Fi Akfolé, donc qui est un immigré. Donc, mon tamit on va euh, avoir l'occasion. Une émission qui promet. Hein. Une émission qui va promettre, Fi Ça promet. Mais votre émission aussi promet beaucoup de choses. Ok, on va changer l'image de la télé. Voilà, merci, beaucoup. C'est la télé des jeunes, bien sûr. Donc, euh, avec Moussa à la régie, euh, un jingle et retour sur le plateau de 52 minutes. transformer votre bureau en un lieu moins triste ou encore votre salon ou jardin en un véritable lieu de relaxation Oui Bien, Touba Océan Décor vous propose des aquariums composés de toutes les variétés de poissons. Elle dispose aussi de matériel d'aquariophilie, de l'eau de cascade. Nous possédons également différentes variétés d'oiseaux, de tortues et beaucoup d'autres animaux domestiques. Touba Océan Décor s'occupe même de l'entretien de vos aquariums à travers une équipe dynamique qui sera mise à votre disposition. Nous ne nous arrêtons pas là car euh, des matériels et cannes de pêche de toute variété, des moulinets et appâts existent chez nous. Touba Océan Décor évolue dans le domaine de l'aquariophilie, de l'embellissement public, de la décoration d'intérieur, des fontaines, des jets d'eau cascade, d'aquariums importés un seul lieu pour la découverte de cette magie naturelle. VDN Cité Comico 3 Dakar, immeuble Aressa en face de hypermarché exclusive, ou nous contacter au 77 657 49 81 ou au 77 656 16 80. Vous pouvez également visiter notre adresse mail toubaocéandécor.fr ou au site web www.toubaocéandécor.com. Trouvez-nous aussi au canal 4 Face, Dakar avenue Cheikh Anta Diop, au téléphone 33 821 26 56 ou au 77 513 14 93. Avec Touba Océan Décor, plongez dans l'univers du décor. Assalamu alaikum, au Sénégal man le Jules Diop de génération consciente Pape Diouf Je 52 minutes avec Nicolas Mortar, fille LCS. Voilà, très bien. Retour sur le plateau euh, de 52 minutes, bien sûr. Merci du côté de la régie, après une page publicité de euh, de Touba Océan Décor, euh, qui est partenaire de 52 minutes. Et nous appelons d'autres partenaires, d'autres annonceurs, d'autres sponsors à venir aider, accompagner la LCS, pas plus, pas plus particulièrement à 52 minutes, mais à toutes les émissions de cette maison, la LCS, la chaîne sénégalaise. Donc, Moham ou Moham 0 stress pour euh, Ramatoulaye hein donc di nuyuwaale Michel Gay euh, du côté de de l'Ouest Foire bien sûr donc du wax voilà café show tamit mu ngi fii ak li nga xamante ne mise à jour Ouais, du ñu euh, Yobol Tamid tamit mu ngi ñëw moom tamit mu émission Bo xamante émission bu bees objectif santé Mom Tamid mu ngi ñëw mu émission bu bees loolu ngir mën Andagien, ak dem kaw

li nga xamantene moy rubrique culture après li nga xamantene moy suñu invité euh, bu jëm ci walu mise à jour ci walu euh, nouvelle technologie nga xamantene euh, nek na lo xamantene outil bobu ñepp a ngi koy utiliser jamono ji ci aduna wërngal këpp dañuy dem ci rubrique culture rubrique culture dañ ci dem ak ko xamantene Sénégal nam nako lol nax ndax jot na fi bàyyi empreinte am ndax joué na fi ak ay orchestre mais orchestre bi gënoon fës ci bu mu non jouer moy bu Alioune Mbaye duma len wax moy kan da ngeen koy découvrir rondo ak ñun ñu gisandoo ko ko ndax un na ko euh, mu ngi ci Adama Faye Adama Faye mi nga Faye Faye Manta Faye ak Faye la tek mi nga xamantene référence am kon ñu à la régie toujours avec Moussa Nous ñu dem and ak y indi leen rubrique culture tout de suite et maintenant dans 52 minutes jëflante dina yéen euh, Nicolas Martor, si 52 minutes c'est LCS. Bonjour, c'est moi Kalilou Fadiga. Je suis dans 52 minutes avec Nicolas sur la LCS. Très bien, donc retour sur le plateau euh, après euh, rubrique culture avec Iboutal Iboutal bien sûr claviste euh, sénégalais hein. donc Mounek nekk foofu dans bitim jeu le jeu avec jeune ak ñu bari fi ci réewum Sénégal waye gis ngeen il a grandi hein bien sûr Iboutal euh, avec beaucoup de maturité gis ngeen légui ni muy jouer donc mu nekk ko xamantene ne mu ngi bitim réew yor fa orchestre mom tamit comme Nico ko Samba Laobé Ndiaye defee yor fa orchestre nekk en même temps requin du jouer ku mun ci donne koo xamante ne nga Sénégal jóge nga Afrique dem bitim réew soxla ay clavis soxla ay euh, instrumentiste yu dynamique yo xamantene ne mën nañ seen liggéey euh, donc gis ngeen dañuy jóge fi di dem ba bitim réew di uti su xool sañuy instrumentiste yi nga xamante ne jot nañ fi def ay étiquette ndax amaanaka du ñuy fi nekk rek ñoo fi def étiquette am na ñoo xamante ne def a liggéey di gën a euh, doo xam fu dëkk neexee euh, donc il est très important donc mention spéciale à tous les Sénégalais euh, yi nga xamante ne nañu xam ne ñun nag Sénégal manqué nañu ay instrumentistes te soxla nañ ko donc ñi fi nekk tamit a góorgóorlu ñi koy bëgg def tamit nañu jàng bu bu baax gëstu bu baax laajte ngir mun cee dem donc 88 628 17 27 plus 2 pour que ngeen mën bok bokk ci li nga xamante ne moom émission bi waaye maa ngi dalal ndaanaan ndaanaan khadim, xaadim dem euh, lañ ko gën a xamee ci turam waaye man du ko tuddee khadim dem man fi ak fële laa ko yoy sa su ne euh, donc mu nekk sénégalais de l'extérieur nek bitim réew di fa daan dolem. Euh, waaye di fa bëgg fa indi indi émission bu bees ci biir kër gi ak bitim réew mu di émission bu mu tuddee fii ak fële xaadim salaamaaleykum. maaleykum salaam Nicolas ziar naa la. delloo nañ ziar la dang may woowee ndaanaan mais yow yaay ndaanaan. yow yaay ndaanaan. non yow la. tous mes meilleurs vœux tous mes meilleurs vœux. waaw merci parce que on n'a pas pu se rencontrer ni ben se voir donc ma profiter ci occasion bi. Mhm. euh né le meilleur vœu hein. ah donc ma bàyyi la nga nuyo ak téléspectateurs yi nga xam ñu ngi lay seetaan. di la souhaiter aussi mes meilleurs vœux di ko souhaiter aussi tous les téléspectateurs de la L16. de la mhm. chaîne sénégalaise. Mhm. di la nuyu di nuyu wa kër gi yépp di nuyu ñi nga xam ne ñoom lañ jàkkaarloo ñu ñuy seetaan. voilà très bien donc Khadim nga ñëw euh, jóge bitim réew dëkk Italie de Espagne mhm. euh, plus euh, autant pour moi que euh, Real de Madrid nga xamantene mhm. sénégalais dañu bëgg équipe bobu Real de Madrid mhm. donc nga dëkk fofu non, lan mo la inspiré nga bëgg indi émission tuddé ko fi ak feulé et pourquoi le nom Fille ak feulé? bon premièrement pourquoi Fille ak feulé? parce que comme son nom l'indique hein, dañu né fi ak c'est-à-dire émission bi nekkul seulement émigré yi la concerné

moom mooy solution bi. Mm, porte bi donc voilà porte de réussite tu vois donc il faut nous sensibiliser les mm, xam mm. pour walla né du qu'est-ce qu'est-ce qu'est-ce moom moi solution bi. et puis fële aussi mu nek lo xamné ni bon d'habitude télé li ñuy won luxe kese la. comprendre nga mais boo ba yegg en réalité du luxe kese donc da ngay dem nga taxaw au milieu di xol donc fan la buntu bi nek tu vois donc ban at nga génn Sénégal ban at nga génn. maa ngi dem 2008. 2008 2008 la dem. ci ngay doog tukki si la doog a tukki bon avant 2008 daan tout tukki tout tukki you ndaw tu vois mais 2008. la dem Europe top dem Europe top top nga am kay kay am de am am 2008 kayit. ah bon si si parce que man dama am liggéey avant may dem dama am contrat de travail mom la demé wa lolou damay dégg ñu koy wax. Mhm. kon lu dëggu la lolou si lu dëggu la. balaa ngay génn réew mi nga am contrat bitim réew. si comment ça s'organise lolou nu muy non man nak euh, bu deug kessé tout hmm. tukki daj naa ci lu nek hein ah daan naa fanaan ay carton di tëdd ci buntu ambassade pour am rendez-vous tous les dimanches te du tax nga am ko comprendre nga mais xam nga rek lu ñu naan euh, lu jotul du yomb man dund naa ko parce que bi may tukki taxaw ma sa ambassade donc lepp dafa ñew ñu wutal ma fofu liggéey tu vois donc euh, ki ñuy wax pap Samb tay mu ngi mu ngi Allemagne. Mm-hmm.

suñu premier problème mooy dañu jàppee source de revenu et tel n'est pas le cas warul mën a demee noonu. fajkat yu ay gàcce ngeen. non mais <laughs> c'est-à-dire instant yi nii. Mhm. bon je sais pas tukki démb quoi mais instant tey tey mais ba tey nii am na ñu fa am seen wërsëg ba tey. non wërsëg même fii yow yaa ngi fii mais yaa ngi jël sa wërsëg. Ah, waaw waaw waaw ah, tu vois donc. gisoo ma xanaa Fall Ndiaga yaa waaw gis nga waaw nga fi nga fël. ah a nekk wërsëg. <laughs> Ah, donc nit foo mënta nekk sa wërsëg mm. euh, yi niñ ko jàppee. loolu la bëgg mu dañ ci seen xel nekkul Eldorado dem rek di for morning fi tu vois wala for morning pass ci pass la du du fofu c'est-à-dire dafa nekk loo xam ne nii bu ñu émigré sénégalais source de revenu hmm. comprendre parce que hmm. du ñu ay source de revenu hmm. donc problème yi bëri na fa man gis naa ay sénégalais yoo xam ne ñu ngi ci kaso yi lu leen ko yóbbee non bëri na am na ñoo xam ne ñoom ñoo def safan am ñoo xam ne bon peut-être erreur bon par exemple tey mën naa jox benn exemple am na mooy ñi doon dem si gaal yi am na benn capitaine bu bu ñu jàpp bi may tourné déjà benn benn reportage foofu. ñu je hmm. koy souligner. Hmm. benn sénégalais bu ñu fa jàpp ma si hmm. profité bu fekkee que l'autorité ñu ñuy dégg ñu bàyyi ci xel. 27 ans lañ ko war a tëj. ci capitaine u gaal euh, Espagne la nekk Italie France. Espagne ñu ngi ko tëj Séville. mu ngi Espagne. actuellement tëddugum na ay 3 ans. donc dese na ko donc 24 ans. kon yow da nga fas yéene ànd ak équipe bu LCS. dem équipe bu LCS laay àndal Séville loolu waxuma sax kese. mais hmm. lépp loo xam ne problème mu émigré la. parce que émigré tam bu ñu ko jàppee ku nekk ku nekk fële rek. Hmm. ku hmm. ngi si. bien sûr ngi dund du n'importe quoi. waa Mali ñu ngi dund du n'importe quoi. Côte d'Ivoire ay doomu Sénégal lañu tu vois dëkk yi nga xam ne nii bon peut-être am na yëngu-yëngu tuuti ay sénégalais ngi foofu donc loolu lépp dafa concerner fi ak feulé tu vois donc yoy noonu yëpp dinañ ko indi. Mm-hmm. tek ko ci table bi. ndax ñu wuti ay solution mm-hmm. ñi nga xamantene sen yaay jaay na or jaay ay bagages. wa comme ni nga ko ci si béyaat bi waaw yóbbu mm-hmm. est-ce que ñoñu sen yaay après am nañ satisfaction. bon ça à dire du mën mais ça à dire euh, fofu ben interrogation lañ fay tek est-ce que jar na ko.

man du ne kenn yàllaa ngi nit a gisuma ko yow vraiment borom baax nga tu vois donc sama émission yow bokk nga ci ñoo xam ne yaa ko njëkk jàllale ci sa plateau tu mm, vois mm. tey loolu doyul nga ñëw indi ma teg ma tu mm. vois donc c'est woowee yow maa lay remercier parce tamit mën naa ne defal nga ma benn buzz quoi parce que cinquante deux minutes dañ ah. <laughs> euh, euh, nga c'est une émission très donc tey xam naa ne tey béyaa bi jàllaat na encore di wax ne rek euh, nañu ñëpp xaar nañu ñëpp xaar fii ak fële mu ngi ñëw ci sa koñ

ministères yi tamit nañ ci bàyyi xel ñi nga xamante ne ñoom yor sénégalais de l'extérieur ñi yor wàllu tourisme ñoom ñëpp nañ ci bàyyi xel te xam mom moom dafa fas yéene génnee mbóoti li nga xamante ne moo war sénégalais yi ca bitim réew ngir ñu mën nekk ci condition yu meilleures donc loolu yëpp danañ ci gën yaatal gën ci émission bi nga xamante ce sera pour bientôt inshallah. toujours avec la chaîne sénégalaise votre télé passionnément donc mom moo fas indi émission boobu mais nous allons continuer toujours en toute beauté sur les antennes de la LCS la chaîne sénégalaise comme vous le savez. Donc, mention spéciale à tous qui nous suivent, de près ou de loin. Encore une fois, nous les remercions de leur fidélité. Donc, 88 628 17 27 plus 2. ginnaaw ma wax jox la nga wax delloo ma yëf ya dem ca kaw ca kanam ci lu baax ginnaaw xamul noo def nam la def rek tax dañuy daal toujours ànd ak ki nga xamante ne moom Moussa Koulibaly à la régie muy nit ñu li nga c'est les vœux les vœux bien sûr du personnel de la LCS nga xamante ne démb tegaloon nañ leen benn wàll dañ leen di tegal beneen wàll ñu jaaree fa tàggatoo ak yen jox len dig dajé demain même heure même antenne euh, sur les antennes de la LCS la chaîne sénégalaise vous avez été nombreux à nous euh, solliciter à nous euh, remercier nous féliciter et nous regarder partout dans le monde entier car nous on nous suit sur www.sunotv.com, donc di leen rek service commercial bi mu ngi leen di xaar muy annonceurs yi muy sponsors yi muy partenaires yi képp koo bëgg LCS ñu ngi lay ubbil suñuy buntu di la xaar fi ci VDN bi donc ñu nekk ñu disponible madame euh, Ngone cham euh, mom mo yor walu bobu noonu muy madame Cham, donc bo la ñëwé fi ñu xol rek naka la gëna mëna and ak yeen ci nu mu ba ngeen mëna gis sen produit ñu visible def ci visibilité bi ci war yeb donc nous vous donnons rendez-vous demain merci à toutes et à tous pour ceux qui viennent de descendre nous leur souhaitons de rentrer bien chez eux et de trouver toute la famille en très bonne santé merci et encore une fois nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux jërë ngeen à demain inchallah waaw Nicolas Matar ma ngi lay jaajëfal ci occasion bi ma may pour ma présenter sama vœu sama mbokk yi sama xari ak sama famille ak ñi nga xam ne moom bokk di liggéey fi ci LCS euh, maa ngi atum 2013 atum 2013 génne nañ ci ci jàmm ak salam mbokk yi ma ngi leen wax yéen dugg ci atum 2014 mu nak benen beneen addu bes yalla ci yalla def xewal jàmm ak salam mu gën addi fi wessu bu naré nakari yalla mi naré ren jërëjëf. sa jangat ci. waaw alhamdulilah fii ay jeunes fi nekk yu booloo yu doon benn yu bëgg liggéey ba kër gi jëm kanam ma profité ci occasion bi di remercier direction bi administration bi ña fa nekk ñëpp di remercier waale sama mbokk journalistes yi ak moniteurs yi ak animateurs yi fii ñëpp benn lañ koy nuyu sama xarit euh, Aïssata Ndiaye Nos waaw Aïssata Ndiaye maa ngi fii ci LCS comme journaliste Bon maa ngi di leen souhaiter euh, une bonne et heureuse année euh, di ñaanal ñëpp euh, jàmm ñaan xewal ci biir kër gi xewal yi saawaan baawaan di ko ñaan ci li nga xamante ni moom mooy ci réew mi biir Sénégal ak ci àdduna bi yëpp li nga xamante ni mooy jàmm mu law ba faaw Casamance yàlla indi fa jàmm ba ñu mën di fa dugg nu ñu neexee di fa génnee nu ñu neexee di ñaanal tamit ñi nga xamante ni nekk ci kër gi ak ñi fi jiitu ak tout le monde comme rek kër moom buñ ci nekkee jàmm am rek ku ne xam sa bopp euh, day doon loo xamante ne nii liggéey bi dafa yomb te jàmm am na fi góor ak jigéen ñëpp jàmm lañu seq euh, donc nag day nekk loo xamante ni rek xéwal la di nuyu tamit ñi nga xamante ni ñoom lañ nekkal ci rédaction bi di ko njëkkee ki nga xamante ni moom moo di euh, suñu waa kilifa di rekk ki nga xam ni moom moo di bi Sambou gi yaatal ñu fi tamit def ñu comme daal boppam. Amara Souma tamit c'est eh, pareil ñi nga xamante eh, eh, ni ñoom ñun fi nekkal di liga ak ñoom nafisatu, ki nga xamante ni moom Muhammad. ak it ñëpp daal ñoo xamante ni ñu ngi ci rédaction bi ñu seq jàmm doo ci xàmme kii mooy kii wala kii mooy kii ndax jàmm bi nga xamante ni seq nañ ko ci biir rédaction bi ba waaw dañ naan dañu bari wax mais nag woykat bi dafa ne ku waddoo làmmiñ soo noppee rafle sa Euh, sama jàngat euh, li mu ci mën a wax mooy entreprise la boo xamante ni euh, y a des jeunes ay ndaw ñoom ñoo fi euh, ëpp te euh, ay ndaw fu ñu nekk dama yaakaar ni avancement warul fa jafe euh, ba tax na rek ñun ñi nga xamante ni ay ndaw lañ tamit nañu gën a jàppoo gën a daal booloo ci loo xamante ni moom moo mën a jëmale entreprise bi kanam te li ko mën a jëmale kanam lenn rek la amul secret mooy liggéey boole ci dynamisme boole ci ngëm-ngëm boole ci tamit li nga xamante ni moom moo di énergie bi nga xamante ni moom la am ndax ndaw énergie lay doxee te énergie boobu wax nañ ko mën jox boîte bi boîte bi jëm ci kanam ndax avancement boîte bi moy suñu avancement sama kàddu bu muju moy euh, ma ngi remercier ñëpp di remercier sama yaay boy, euh, sama yaay bi nga xamanteni euh, sama dom mo xay topato du matin au soir mom mo nek ak mom di def coucou à ma petite fille maman Diallo di ko nuyu bu bu baax a baax di nuyu ñëpp di wax sama yaay yalla na ko may fan wu gudd ak wér gu yaram may ñu xewal ñu mën ko ñu mëna yobbu suñu wayjur yi makka les yeux dans sant yàlla bu baax euh, di gërëm gaa yëpp waa LCS personnel LCS bi yëpp damay gërëm soo xam ne moom ma jiite si caméraman yi muy Amadou Kébé euh, di ko bëgg bu baax a baax a baax parce que yàgg nañoo jàppale di ñu wan di ñu tette euh, parce que ñu ñëpp ay jeunes lañ balaa tout tamit damay gërëm sama yaay damay gërëm sama papa sama mag Ousmane Gueye damay gërëm ñëpp daal awma leneen lu may wax lu dul lool ñoom rek laa gërëm. waaw tournage laa jugee. Euh, wax ma laa de moom bu Sista Maria wax bu Sista Maria waaw. waaw lépp jàmm dem nañ tournée ji jaar kër Sista Maria añ fa ba suur macha allah ñëwaat euh, fas yéene continuer suñ liggéey ba suñ heure wàcc ñu wàcc dem kër. waa ñu gën a góorgóorlu parce que nit loo gis rek liggéey mooy mooy mooy mooy dëgg. liggéey parce que Serigne Touba Xaadimu Rasuul daf ñoo diggal ñu liggéey ak nu mu mënti demee nañ ñu liggéey ñun ay jeunes lañ ay xale yu ndaw lañ koo ci xool euh, bu amee 23 ans ci lay yem ay xale yu ndaw lañ mais liggéey lañu sant suñu waajur yi moom lañ ñu sant def nañ suñu jàng jàng nañ ba pare pare suñuy étude euh, fas yéene liggéey nag ba faw nag liggéeyal Serigne Touba liggéeyal ñëpp incha allah sama kàddu bu mujj mooy maa ngi lay gërëm di gërëm euh, bépp personnel bu LCS euh, di gërëm surtout surtout surtout sama mag bu góor muy Ousmane Gueye euh, parce que dafa yàgg sonn ci sama jàng yàgg sonn ci lépp lépp lépp lépp lépp mu koy gërëm bu baax a baax a baax. Eh, man maa fi réalisateur. waaw. non nekkuma di réaliser lépp lu dugg biir RCS parce que ñoom Kébé ñi ngi ni ñoom dañuy réaliser ak ñoom Moussa ak yeneen monteurs yi ak yeneen caméraman yi mais bon comme man loolu titre rek bi ñu ma jox titre en chef bon yenn émission yu bëri yu fës ko réaliser mais avec l'appui du directeur de la photo mooy Amadou Kébé de Moussa Koulibaly ak ñeneen ñi fi nekk ñëpp si travail d'équipe la daal du liggéey boo xam ne ne kenn moo ko moom exclusivement xëy na dañ naan luy bu jotee dinañ ko jagleel diw mais diw moomu du moom moom moo tax ne ne moom rek moo koy def du moom rek moo tax du moom rek moo koy def waaw loolu la. non y' a énormément chaque jour on l'améliore moom kay dama ne perfection n'existe pas dans ce monde on tend seulement vers la perfection ñun ñëpp dañuy góorgóorlu pour. affaire bi nekk loo xam ne ne ëllëg bon sunu téléspectateurs yi gis na ne vraiment professionnalisme la ay ndaw lañ dañuy jàng xam ne dañuy jéem fii bokk naa ci télévision bi ñi nga xam ne ne ñoo fi mag. donc xam nga ne kon fii ndaw la dañuy jéem rek xam nga y a toujours quelque chose à perfectionner bés bu nek ñuy waxtaan di jëmale jéem a xool ñu jëmale yëfi kanam. ah sama cadre bu muju joyeux bon je euh, vous souhaite une bonne et heureuse année Franchement, en 2014 waxuma dakk sax mais mu gën 2013 parce que 2013 c'était était année la bo xamné année à tout point de vue. les choses qui vous ont le plus marqué dans 2013. bon les choses qui m'ont le plus marqué c'est que franchement franchement le niveau de vie a reculé niveau de vie doit reculer que nous ñi des nekk problèmes ça veut dire que les lu du Japon comme qui on l'a perdu il faut que nous fexe ñu et puis tamit côté audiovisuel nous ñaax suñu bopp ñun avancer mais nous ñëpp avancer parce que peu kii bi moo ko laaj euh, nu mu tudd Sénégal moo ko laaj. actuellement Sénégal nit ñi téléspectateurs yi ñoo dépassé niveau bu ñu nekk parce que léegi le monde est un village planétaire gars yi dañuy seetaan France 24 dañuy seetaan CNN dañuy seetaan Al Jazeera dañuy seetaan tf xam nga kon suñu ëlbatikoo seetaan euh, suñu dëkk yi xam nga le niveau est encore bas il faut que nous nous fait nous nous concurrence entre nous nous nous l'exemple exemple la chaîne may on va aller vers l'avant et c'est seulement le téléspectateur qui mais ils vont ils vont nous faire confiance voilà si tu à tout faire à la télé par exemple aw ma fi métier daal je fais tout du moment que je rek du ma lépp laay def quoi je fais maay fobeere maay nettoyer maay yóbbu maay indi gars yi je fais tout ah, tamit des fois ci par benn benn LCS bon c'est LCS bon fi tok di wax fi bari trop parce que LCS bon amna avancement avancement na avancement depuis buñ fi duggee léegi man mom ci ñi fi ci Nous ci li fi ne lu ne dund nañ ko mais xam nga gis nañ ni ça avance quoi te xam désespérer jamais. ah pour mon mom full rek la quoi. ku nekk amee fula ci li ngay def leen ku nekk tâche bi ñu la jox nga gérer ko ni nga ko war a gérer moi je pense que liñ bëgg dina ko ci télé bi rek muñ te xam ni que li la gënal am li fi sës comme donc si yow laa koy faral di déggee kon nag mën na <laughs> xam nga waaw si kàddu bu mujj mooy di gërëm ñëpp di seede ñëpp it bon. laree soir. une année de prospérité, de santé, de réussite pour tout chaque, tout chaque jeune. Sans oublier personne, les bébés, les mamans, les papas, les <laughs> grands-pères, tout le monde. ci yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek euh, di leen gërëm képp koo xam ne yaa ngi nekk surtout yow mi nga xam ne yaa ngi def émission boo xam ne Sénégal yëpp nga koy suivre ah jël bi nag dafa yàgg te jël bi moo jeexal làmb ndax boo nee jël bi rek kenn daan de ce fait que jël bi lëmuwul dafa bari te làmb dafa làmboo lu bari loo xamante ni bi kenn mënut a taxaw dina ko expliquer kon mu nekk loo xam ni làmb metti na waaye neex na ci ku am amour bi ku amul amouru làmb du neex ci yow day métti ci yow mais làmb métti na waaye ci comme ak ku am amour doo ko yëg waaw ñuy seetaan émission yëpp rek parce que man LCS samay doom ak samay jarbaat rek fi nekk ñun ñëpp noo bokk ndey ak noo bokk lu mu bëgg damay wax ni Sénégal réew ma ne su fekkente ni bi da faa nekk di yokk moo gën réew mooy wàññee rawatin nag suñu réew mi nga xam ne dañ ñu genn la ñooy bokk joowandoo kon ñun émission yëpp la ñu seetaan rawatin nag jëli bi ndax làmb actualité la. ku amub télé wala nga amub rajo te defoo làmb yaakaar naa ne télé boobu wala wala euh, rajo ba dinañ ko déglu dinañ ko seetaan mais làmb da cee bokk daa bokk ci ñun déggoo ñu ne sport chez nous ci ñun la ah di gërëm ñëpp di ñaan nag yàlla at mi ñëw mbii di ñëw ni yàlla defal nu ci xéewal tàppe xol yi mu doon benn ci barke yonent bi di ñaan at mii muy jublu yàlla na dàq at yu bëri ñu fekke ko te kenn bañu a manqué waxuma la groupe LCS la scène sénégalaise waaye képp koo xam ne yaa ngi yor télévision wala nga nekk wala nga yor rajo yàlla na nga ci am ndaw rawatina na rawatina nag ñun damay ñaan yàlla na raw RTS ndax RTS mooy ndeyu télé yëpp di ñaanal suñu DG Jibril fan di nit ku yàlla baaxal kuma ma ku yëg ak Mara Ndiaye mi nga xam ne muy directeur programme LCS daal caméraman yeeg ñëpp jox nañu ma cër.

Cette émission passe tous les dimanches de midi à 13h. Quel est le concept émission ben, Le concept de mon émission, c'est essayer de sensibiliser surtout les jeunes catholiques euh, en tant que chrétiens catholiques. Essayer de faire des moments de, prière, d'enseignement, de louange et surtout d'adoration. Aller faire des reportages dans les communautés pour faire valoir qui aussi ma religion. ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'engagement des jeunes qui vraiment qui s'intéressent beaucoup à mon émission, l'émission Pain de vie et qui m'appellent de gauche à droite, même aussi les, prêtres aussi m'appellent. Je remercie de, je, salue de passage à Abbé Jacquemé qui m'a même appelé ce dimanche pour m'encourager sur, l'émission Pain de vie qui s'est passée ce dimanche passé. donc, 2014, euh, à votre émission et puis euh, à l'endroit de tous les de la LCS. d'accord mais à tout le personnel de la LCS d'abord la LCS parce que dañ je là, quoi tous les à tout le personnel de la LCS depuis l'administration jusqu'à jusqu'au caméraman tout le monde euh, aussi je fais mes vœux à l'archevêque de Dakar Théoron Ariensar, et tous les prêtres les abbés abbé Roger abbé Tanislas, la, mon, curé Abbé Simon et aussi ma famille. Le lieu de moi, comment oublier ton sourire Walaikum salam Nico. Santi Allah Alors, Laïdiak, <laughs> animateur, présentateur à la LCS, hein? nous sommes deux. Merci à vous. Émission, euh, émission

Certes que c'était difficile, 2013 hein, a été une année vraiment, vraiment, vraiment difficile. Euh, parce que bon à la LCS euh, fille ci le suñu à Dona, 2013 donc le président Ousmane Masek Ndiaye il na souffle. ci souffle la télévision alors nous, wax eu le a Hein, daal di ñu may courage bi nga xamantene ni dañu li nga xamantene ni sumbon nañu ko yalla nañu yalla may ñu yeggali Ousmane Masseck Ndiaye ñu ngi koy ñaanal 2013 yombul parce que 2013 euh, ci le ki nga xamantene ni mo sos kër gi daal di génn àdduna bàyyi ñu fi donc ñu wara relever un défi motax 2013 nek loon année bu facile surtout euh, ci cadre job bi vraiment Nico voilà, donc euh, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il y a beaucoup de choses à améliorer. Certes qu'il y, a eu beaucoup d'avancements. Alors donc euh, fille Nico quelques mais bon je pense que nous ñun donc voilà euh, on est là pour pour pour pour donc hein. nous sommes là donc pour que la c'est donc a kanam te je pense que nous ngi ci nous avons lancé Bobu, ñu ngi optique bobu. donc voilà je pense que 2014 euh, qu'on soit soudés qu'on soit unique hein, euh, seule l'union fait la force Le lay adage bi il n'y a jamais de sans et que seule l'union fait la force je pense que s'il y a la conjugaison des efforts alors des, animateurs entre les animateurs entre les monteurs entre les caméramans ay ndaw kese fi day ak बघ certes parfois nga am ay mm, euh, voilà ñëw am quelques retards de de de xam nga pour am ben tournage boy wara def mais da ngay def le maximum xam nga pour lolu jaar ci yoon tegu donc motax bon fi ay ndaw yu motivé ñoo fi nekk donc buñu soudé wo nek ben nek ñun ñëpp donc ben voilà kenn duñu té yow xam nga lolu sax kenn duñu té téye fans yeb bu baax a baax ah, na 2014 nek donc atum mbégte ci Sénégal atum natangé atum banex di ñaan le président de la république moom itamit 2014 euh, nekkaat boo xamante ne nii ah dina ci gis ay amélioration les plus mu pour Sénégal mu daal mais di également 2014 nekk année boo xam de LCS day ñëw dal tellement de souvenirs. <laughs> Mariama Moussi stagiaire cadre LCS. Mm -hmm. Ça fait tout juste deux mois et demi. ah non, parce que LCS avant tout famille neen an déggoon neen affaire gars trop boo surtout man comme man stage là, comme gars yi nag ñu may jàppale ndax fii samay góor rek samay góor rek laa fi samay góor rek laa fi am caméraman waa caméraman waa comme jafewul surtout boo nekkee fii moom jafewul parce que fii samay góor rek laa fi fekk te ñoom ñëpp dañ may jàppale man maa seen jigéen ko mu gën a neex affaire yi gën a jaar ci yoon mi ngi jaar ci yoon sax mais bu gënee neex daal moo gën. conseil waaw vë télé bi daw dem ci kaw ci kanam ci lu baax ndax bu demee ci kanam rek ñu tam ñu dem ci kanam. May Adamadiane maquilleuse LCS. Mm. euh, depuis main. mois, maa ngi fi waaw. ke maquilleuse ñu ne métti na méttiwul parce que parfois tamit aussi yenn saa nga soxla ki ngay maquiller mu jaar nii kii jaar nii comme par exemple nga soxla Jean Fall mu <laughs> ngay di ko dundee en fait que métier woon nag mais métier boo xamante ne lu ni métier bu da ngay comprendre nit ñi rek te xam ne kenn matul bon euh, métier bu ni ko mën a waxee daal amul benn problème waaw loolu la gars yi wax nag de waaw loolu la gars yi wax. Euh, li may mën a jox ci biir conseil ci biir STS mooy que ñu gën a góorgóorlu nekk benn àndandoo te ne liggéey. Euh, parfois yenn saay mu neex yenn saay mu yi parce que liggéey moo nit ñi mu bokk ñooy tax parfois yenn saay euh, réeroo mënta ñàkk waaye waxtaan moo am xam nga dañuy gën a góorgóorlu te xam ne liggéey benn neexul mais dañuy comprendre te xam ne daal métier moo demee noonu dañuy boole benn bërëb nekk mais après bu ñu boolee benn waxtaan après xam nga rek mooy loolu daal. joxal say vœux say meilleurs vœux. Euh, samay meilleurs vœux mooy que année bi ñuy waaj a dugg na nekk am na année boo xamante ne année bu neex la ànd ak fierté beaucoup de longue vie bokk de santé que nit ñi fekkee ko ci at bu neex. li ñuy séentu mu doon li nga xamante ne te li lu ci waay di yootu da doon loo xamante ne lu ko jig la mu gën ci moom daal parce que nit tamit li ngay yootu yi na fekk mu doon lu gën si yow daal loolu la ñuy ñaan nekk année bu année bu neex daal te LCS gën a jëm si kanam nekk télé bu gën ci gën a yéeg ci gën télé yi daal di gërëm ñëpp baw kenn amu fi problème daal ñu gën a booloo nekk benn rek waaw. Euh, maa ngi nuyu senegal gépp Euh, euh, bonne et heureuse année Je suis Mad émission Bek tey bégale euh, muy tous les jours 19h35 redivision 10h. di wax ne nak gaay ñu ngi fassiyene dugg ci at mu bes mi dama nan rek ñu ngi dugg ci 1 2 bi ak 0 bi ak 1 bi 4 bi di ñaan yàlla suñu borom ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim teral ci alhamdulilahi rabbil alamin may wax te spectateur yi ñi sétane tamit di wax ne ñu bàyyi xel bu baax baax ta xam naa ne lu ñu dencoon rek ci 2013 bi ci ci lu baax ci lu gën defe na ne dañ ko dañ ko doli ci 2014 bi ànd ci ak 13 spectateur yi rek pour bégal leen émission bi ñuy def ñaata bon defe naa ne euh, mat na huit mois. Euh, bégtey bégale ça veut dire que maanaam day bégal ndaw ñi di bégal gune yi euh, di mën a waxtaan góor di mën a waxtaan ak jigéen di mën a waxtaan ak américaine beeg italienne beeg keneen ak keneen ak keneen maanaam bégtey bégale stress bi moom daa ñëw pour bëggal émission bi loolu la en même temps tamit la wax aussi tamit yi nga xamante ne moom la gaa yi dund ci dëkk bi saa saa yaa ngi dañuy seeti euh, tôlier yi maanaam ñii di liggéey xam nga ku ne lañuy seeti rek pour ànd ak yow bëggal la ci li def. Euh, sa man sama jàngat euh, nee naa ne la seen sénégalaise mu ngi avancé bu baax te defe naa ne bu ñu ko poussé dëggantaan rek dana dem ndax nee naa ay xale yu ndaw ñoo fi nekk. fonk seen liggéey di liggéey euh, man de euh, balaa boobu sax man euh, damay remercier bu baax a baax les caméramans man kër gi. cameraman yëpp dama leen di remercier les techniciens ndax dañu ne euh, kër bu setee rek euh, bu fa bare jaarul bu set te ñoom defe naa ne euh, ñoom dañu bale kër gi ba pare moo tax damay remercier techniciens yi ak cameraman yi nga xamante ne tey ñoo nekk fii damay damay faral di wax à chaque fois bi à chaque fois dama naan techniciens yi ak cameraman yi ak monteurs yi ñoo ñun ñoo ñu war a delloo njukkal kon maa ngi delloo njukkal toutes les caméramans monteur maa ngi bàyyi ma kenn télé bi ñëpp maa ngi remercier ñëpp euh, di gërëm bu baax monsieur le directeur di gërëm bu baax aussi tamit euh, euh, Mara Ndiaye Cheikh Tidiane Diop sonn na trop si saa ma ñëw sa bëgg ko poñe mu ne ma non non c'est production bee demee noonu ma naan ko Tidiane dundal.